dolli ko sàmm sàmm njabootam defal ko ay yéeneem yëpp defal ko mboolem jaamu yàlla yi yooyu nekk sunu techniciens yi ñu nekk la ñu ngi tafsiroon ak yéen ci laa uqsimu bi yowmil qiyaama mu jóg yéen démb ci wala uqsimu bi nafsi lawaama yàlla dafay naw lool ki yar bakkenam déggoog moom ba du def safaan wax naa la nag nafsu lawaama man nga ko tuddee xarit bu baax parce que itam ki lay yedd di la tere lu bon bokkul ak ki lay dugal ci lu bon sëriñ Mansour radiallahu anhu danaan wax ne ñett moo am ndigal ndugal ndigaale nee na dugal boo manee bul def boo mënul bul def te mooy Assane job ponkal mais saaga ko ba mbej ko ba sànni ko xeer kooku da lay dugal wala demal nga jël kalpe jàmbur bee wala dugal ci toolu jàmbur bee nga sàcc euh, loola mu lay dugal boo ci duggee la la cay dal moom du la ci jàppale moo tax sëñ Mansour daan wax ne ndugal ki lay dugal soo manee bu ko def soo mënulit bu ko def muy benn mu ne ba ca des muy ndiggaale mooy war olof naan siggil diggaale maanaam dafa am ñoo xam li ñu séq maak yow relation bi ñu séq muy wëllëre gi maak Assane Diop kon boo xewlee su ma mënee naa def su ma mënul naa jéem waaye wàcc na ma su ma ko mënul li nga diggaaleeg nit ki soo mënee defal soo mënul wàcc na la su fekkente ne nag ndigal la ndigal moom man def manoo def moo tax yàlla julli nekk farata oor nekk farata aj màkka nekk lu war natt asaka nekk war dundal say wuy jur nekk war ci boo ko manee ak sa njaboot ak rafetal sa dëkk bi parce que yàlla la ko sant kon ndigal yàlla koy def comme aqimoo salaat julli leen ato zakat joxe leen azaka waaw ñu mel ni xajjul bayt yooyu yëpp sunu borom ak kutiba aleykumu siyaam ay ndigal la yu jóge sunu borom jëm si ci jaami kon man def manoo def il faut nga jëm ko ndigaali nag mooy lu nu seq su ma mënee def su ma mënul bàyyi li ma bëgg a dugal nag ci mu wóor ma ne man dama ciy lor saagaal diw jëlal alal jàmbur sàccal man la ciy ñëw ci sama kaw lay daanu sëñ Mansour nee na lànkal lool kon ki lay digal lu baax kooku mooy sa mooy ki la bëgg ki lay digal lu bon nag mooy ki la bañ ak pouvoir mën a am sallallahu alayhi yi ñoo ëpp may ñépp te da daan ànd ak ñoom dañ leen daan wax dëkk parce que nit lañu comme nit ñi li li li dox suñu digganteek ñoom mooy yàlla dafay yebal malaaka mu ñëw ci yonent ne ko yàlla nee na nga wax nit ñi nee leen ñu def nàngam différence bi lii rek la mais nit la nu donc nit kooku nag nga xam ne dafay eh, dafa am xel am xol day juum parce que xel léeg-léeg mu wàcc yoon léegi léeg xel wàcc yoon mais léeg-léeg mu dellu ci yoon moo tax koo mën a àndal ci àdduna bul ko teg yenn bërëb yi ba doo ko wax dëgg Seyduna Omar daan wax yonent bi li nekk mboolem ku daan ànd ak moom su ngeen séqee mbir mu wax la lay dëgg imma bu la neexee nga nangu ko su la naqaree yaa xam mais du tey dëgg-dëgg la moo tax yonent bi daan dundee noonu saabay daan loolu nag li koy waral mooy li ñu bokk bokkul ak li màbba moom màbba li mu moom sëñ Abdoulaye danaan wax ni li nga bokk li nga moom li ñu la boole ak li sa yoon nekkul Cheikh Abdoulaye nee na li nga moom ful la nga koy téye sa alal la kon gannaaw màbba moo moom nag olof nee na waxtaan li neex borom kër du dëgg tele bi dangay def li neex bu parce que moom moom teleem waaw ah. moo la fi jël ngay liggéey kon li ko li mu bëgg defal loola parce que moom moom moom teleem waaye yow boo demee sa kër yaa yilif sa kër soo demee nga dund la la neex moo tax Serigne Cheikh ne koo fekk këram boppam rek lay yëg loolu sëñ Cheikh nee na koo fekk këram boppam lay yëg ndax moo yilif fa mu nekk moo tax Euh, li nga moom sëñ Abdoulaye nee na téel koo ci dugal bu mu ci dugg koo ci dugal bu la neexee génne ko ci ñaareel ba mooy li nga bokk ak say nawle koo kenn ku ne day jël cëram yamal ci sa cër ndax say nawle nga ko bokkal li ñu la boole nag ki la ci boole fu mu la yem loo yem ci dangaa ñu usaalin sàll abal la néeg jox la néeg xëccal la benn làmp du dala cee boole fu mu la yemloo ci pantere fu mu la yemloo ci benn làmp may na leen nga duy ñaari pan par jour yamal foofa loolu sëñ Abdou Lahad wax li sa yoon nekkul nag maandu ci mooy li ñu la boolewul màbbali xew ci télé bi wala li xew ci rajo bi wala mu xew d'accord wala fu mën a xewe wala seen kër ka ko amal ndoy mi organisé yëgalu la amal ngorgo gu toll ni bu doon parfum bu mu la xeeñ waaw bu doon cuuraay bu mu la xeeñ parce que loolu mooy nit waaye lu ñu la boolewul ngeen ni ci lijji soo ci yàq yaa tooñ kon ñeent yooyu moo am solo nit ci xàmme ko dafay am solo moo tax nit ndooy ku mën a doon ngeen ànd fexeel ba ne leen dëgg rek boole xam nga dëgg nu mel mu ngi mel ni pontu boo daaj ci ñaari dénk kenn dootu leen mën a teqale caaxaan teqaleetu leen wala ñaari dénk yu ñu boole ak kol caaxaan teqaleetu leen waaye dénk yu ñu tegale boobu ma xee mu tuuru mooy ànd bu dëgguwul Sénégal nag li fi xew da ngay ànd ak ni ne waaw parce que moom may may xaalis waaw moo ma jox oto waaw moo ma may kër waaw moo ma jëndal lii waaw moo ma utal passeport yooyu d'accord teraanga la waaye su dëgg jotee nag nañu jël suñu juddu yi jël suñu am-am yi jul lépp dégaase ko samp dëgg muy dëgg loolu mooy àdduna <laughs> waaye nag <laughs> yow itam nag man loo ma mën a defal yàlla defal na ma lu ko bindoo ma dundaloo ma màggaloo ma defoo ma nit kon donc yàlla lu la nit mën a defal ci àdduna ba nga am loo ko rusee ba am foo ko teg yàlla defal na la lu plus loolu kon cër boo bëgg a jox nit jox ko yàlla ba pare moo tax wala uqsimu bi nafsi lawaama xarit daal day conseillé xarit ba bakken bi nga xam ne nag nit ki yar bakkenam ba bu nammee def lu bon bakken bi ne ko du nii yaa ayyatuha nafsul mutmaina irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fa duxuli fi ibadi wa duxuli jannati ku defar sa bopp foo dem fa place sa bopp foo dem ay nit ñu baax ne fa am nga fa place ku sol set foo dugg nit ña sollu set am nga fa place waaye ku sollu tilim mënoo dugg ci biir ñu sollu set kon defet sa ji ko farata la moo tax sunu borom nag dafay bëgg nit ki yar bakkenam gis nga yi ngay gis ay tux miyeeg naan sàngaraag tux yàmbaag yooyu yëpp kii rek la kenn liggéeyu la léeg-léeg nga dégg ko naan diw dañ koo liggéey ndax li muy def liggéeyu ñu ko yaree de la naanum sàngara tuxum yàmba sàcc ah yooyu yëpp topp sa bakken la rek bés boo tëddee ci lal bay sukkuraat wallaay da xam ne yàlla bari doole yàlla nag su la bàyyi sa bakken dalay xool ba xam waaw ah. waaye yaa ngay gaz yaa ngay naan sàngara yaa ngay tux yàmba yaa nga ca logum doom yooyu yëpp ñu naan dañ koo liggéey kenn liggéey yu la sa bakken nga toppati wa inna nafsa la amaaratun bi suu yàlla nee na bakken ku ko topp du la digal lu dul lu bon waaye képp koo xam ne nag moytu nga sa bakken la Sëriñ Tuubaa waxoon ne mëlëktu nafsiya mëlëktu nafsiya ñu ne ko lum la jural mu ne wa zazaatu fexe naa man ba sama bakken may yëlif ko amaara bi soo moom aw ma ko yi ma am mooy yëlif naa sama bakken ba nga xam ne fu ma bëgg lay jaar fu ma bëggul du fa jaar kon nekke yar sa bakken sëñ Alsan dafa am solo euh, bàyyi ko xel baax na si daajment dafa ne bari na ko yenn doomam yóbbu ci ko waaw sama doom ji dañ koo liggéey àndatul ak mu toll mu ngi naan sàngara bu koy def du ko tey si daajment nee na da ñàkk sa xaalis kenn liggéeyu ko nee na bakken la asxara min haaruuta wa maaruuta waxi muhammad sallallahu alayhi wasallam la Maodo way ko gis nga jibarkat yi dàqoon a jibar ci monde bi yàlla wàcce woon leen kenn ki tudd haaruut ki tudd maaruut la ñuy aay aay ci njibar si daaji maa ne na bakke na leen dàq yàq fuuf parce que ci tuxantu ngay mujj tux ci naanantu ngay mën a naan ci fenantu ngay doon fenkat bu mag ci sàccantu ngay mën a sàcc lépp loo defantu rek bu yàggee nga ngay ngay ndongo loola waaw ah. bu dee lu baax ngay defantu lu baax bu yàggee lu baax rek ngay def su ko defee nag bokk na ci it liy gaañ nit ndóoy ba sa famille duñ la wax dëgg su dee yow rek yaay liggéey bu weer dee nga foraat sa benn cent mille fa la cent mille yaay joxe ceeb yaay joxe suukar yaa yor kër gi waaye ndóoy boo doon tox yàmbaa ñu ne ñu ne ñu ne cuuraay la c'est très rare nit ne ci famille am wërsëg ñu ñeme ko wax dëgg dañ koy jëw nag li mu nekkee nangam nangam bis buñ ko jàppee lii muy jaay dugg na fii génn waaye boo génnee rek ñu la man nag je préfère nooy nga wax ma dëgg soo ma waxee dëgg bu ëllëgee lépp lu ma dal danaa ne ndóoy dee waxoon na ma ko yow boo jàkkaarloog man ne ma Iran lii lépp waxoon naa la ko dafay am solo moo tax bu la kenn bu kenn rëy ci yow ku la yàlla mën a boole lu mu doon doon kilifa la muy def bu la ca boole wax ko lay dëgg su la ca boolewul nag maandu ca sa yoon bu mu ca soo liggéey lu xew ku la laaj nga ne ah man nag Iran bi muy def yëgalu ma ko dafa am genn góor gu ne ndax ma mas a laaj ne ma dégg naa diw dafa voyagé ma ne ko ba muy dem tàgguuma luy sama yoon ci voyage mu ne ma ñun ñiy jëfandikoo xaw ma baatin xaw ma lan bu voyagé dañ ko yëg ma ne ko man bokk ma ci ñooñu ko ma tax yëguma ko yow yëg nga ne voyagé ne kay kon loo ma ciy laaj donc pour wax la nit ñi seenu yembadi ak seenu doyadi nit dafa war a doon koo xam ne koo mën a àndal jëfandikool baat bi allawaama yàlla bañ na ko dafa naw dafa naw dafa naw kii wax nit dëgg dafa naw ki not bakkenam dafa naw ki yar bakkenam soo yarul sa bakken dañ lay fooyee gis nga nduy léeg-léeg nangu loo xam ne ñàkk yar bakkenam a tax parce que benn un million benn cent million benn cinquante million benn un milliard ñu bëgg la ci soppi ndóoy def la golo milliard jar na ko alal ji ci monde bi yépp ak li ciy kër liy xaalis liy oto liy avion li fiy train ak metro yépp buñ ko dajalee woon jox la buñ la bëggee doye dal lu toll ni pepp suuf lànkal parce que yooyu yëpp nit a ko deferte yow yaay sangu lépp ti nit nga mais am na ñoo xam ne fuñ foraatoo mille francs deux mille francs wax fa waxi caaxar jëw seen morom laal deru jàmbur koo mën a àndal wërsëg wa ngay jëlee ci moom dalay wóor ne mayu la ko da ngay ñàkk mu di la fay man nag sama ñàkk moo ma may li ma am su dëkk jotee ma wax la ko boo ma ci boole su fekkee boole woo ma ci nag ma maandu ci yow xam ne kenn fi ne mooy yàlla boo demee armeel ya mu nga fees dell ka leen fu yóbbu mooy yàlla soo demee ci hôpitaux yi mu ngi fees dell ka feebar la mooy yàlla soo demee ci prison yi mu ngi fees dell ka leen fu yóbbu mooy yàlla soo demee ci mbedd mi ñuy ñàkk fees dell ne gadd di yelwaan yàllaa leen ko teg soo génnee handicapé yaa ngi ci biti du jeex lépp yàlla bo xamé loolu nak kèn dula la bubu golo dila sami sànni ay damiti mburu da ngay lank parce que doyé di baxul nak boko nangul kèn bubu golo dila san sànni damiti mburu ak seetu ngay xol ñi reetaan lol kèn du ko nangu bu ko nangu moo xarit bu baax yalla soxla ko sa bakken yar ko gis nga ndoy ni sax war na yegg fo xamne mabami sulu wuri ni du la wax dëgg libéré ko nit war na sax mu ngeen xaritoo te lépp luy tëral wax ko moom du la ca wax dëgg looy tërale te bu ci wax ak moom seetal ki lay wax dëgg nga wax ko ko parce que dëgg dafa noppale li nga ndóoy ku la wax dëgg rek jox na la ker goo féexlu ku lay jay yóbbu na la ci naaj wi parce que ku topp sa bakken ci naaj wi nga jëm lu mat a bàyyi xel la nag sadaxallahu alazim Euh, tafsir kii moom nee na ci tontu SMS yi dafa am boroom kër te bi muy séq ak boroom këram maanaam may nañ ko boroom kër biñ koy may boroom kër boroom këram fekkul ci moom ak ndaw waaye li ci doy waar moom nee na yëgul fu mu njaaloo masta see kenn loolu itam ndooy am na nag fu am na am na xalaat yu ci war a dugg ak xam-xam kooku médecin yi am nañ ci wàll maa ngi leen di interpeller ci euh, ci masala bi question bi parce que ñoom it parce que yiy judd ci ñoom lay jaar ñaare te seen xam-xam yegg na fa nit mën naa judd te du indi ndaw est-ce question la nit dina dem itam ba du am ndaw jàng nañu ñun ci côté boobu wax nañu ni jigéen bu sotee cëpp foofu ndawam mën naa dajjeeku su sotee dëju comme yooyu ñuy def nga xam dañuy tëb ne dëj ñu rëdd fi ñu yem kooku mën naa dindi ndaw xàqtaay gu métti mën naa indi ndaw baa ñu dóor la dóor yu metti ci ndigg mën naa dindi ndaw yaa ci des nag xëy na ñoo médecin yi ñoo koy mottali yii nag ñàkkul yow ndaw si nga def ci benn xam nga éducation du physique bu ko jigéen ñii def léegi léeg ñu sotte corde bi léeg-léeg ñu daw bu sori dëju yooyu yëpp dafay dindi ak ndaw soo demee ci siraaj mu nga fa kooku pour oustaz la mais sama élève sixième ñi moom yobalu ma leen ci lii rek moo moo nekk waaw donc loolu danay am soo fekkee nag loolu daf ko arrivé moom moom xam na bu dee jaar na école wala daan na tëb wala xàqataay yooyu yëpp day dindi ndaw waaw ah. moom nag nee na masula sëy ak kenn waaye ndawam dafa daal dañ léegi nag am na jëkkër waaye nee na ba léegi amul doom ak boroom këram moom daal ñaari problème la am bi muy am jëkkër amul ak ndaw waaye fàttalekul fu mu sëy ak benn góor te boobaak léegi ñu may ko jëkkër mënu caa am doom kon dangay jàpp ne yow lii ñuy tudd dogalu sunu borom la ci yow dogalu sunu borom la ci yow waaw ndax li ma la wax mën naa ni jigéen njànqam dana dañ ci du njaalo c'est possible luy nekk la ñàkk am doom it mbiru yàlla la yàlla mooy programme doom waaw mooy programme doom ci nit di mu bind yépp ñu ci war a am doom programme ne ko ak kenn ku ne na nga war a amee doom programme na ko ñi ci warta am doom yépp programme na ko waa léegi noo koy xamee loolu problème bi noo koy xamee mooy affaire bi waaw manoo koo xam dangay làmbutu rek ba yàlla dogal ko baa ngay làmbutu ba mu bañ koo dogal su ko defee loolu nga xam ne kon dogalu yàlla la rek nga nangu loolu xam ne mooy dogal doom moom moo koy dogal lii ma la waxee danay dindi ndaw mën naa am nga def ci benn sotti cëpp baa nga tëb dëju baa xàqataay baa dóor yu metti yu la dóor ci ndigg yooyu mën naa dindi ak ndaw yow nag yaay xam yow mi laaj laaj bi su tontu bi ñëwee nga xam su fekkee yépp nag amul dawal nga dellu ci médecin yi ñoom ci seen xam-xam mën nañ ci jàng ku judduwaalewul ndaw waaw loolu moo mën naa nag mën nañ ci jàng ku judduwaale ndaw mën nañ ci jàngit leneen lu bokkul ak li ma wax lu war a mën a dindi ndaw voilà su ko defee loolu mooy tontu aji laaj jooju lu ñu amoon ci waxtu wi jeex na ki doon def tafsir bi ak tontu SMS yi mooy seen mbokk Iran lu ma ci juum yàlla na ma ko yàlla jéggal lu ci jub yàlla na ko yàlla def yu sotti ko ci àdduna bi yëpp ñu bokk ko jëriñoo kon ba suba ci waxtu yi incha allah.